waaw gis nga tey dañoo ñëw fii ci yi bu Wakaam ànd ak monsieur le maire mi nga xam ne nag ñu ngi koy féliciter au passage de son engagement vraiment aussi pour que waxtaan ak askan wi ndax euh, gis nañ ne euh, feebar bi ba mu tàmbalee ba léegi service yëpp ñu ngi liggéey commune euh, maire yi ñu ngi liggéey autorité administrative ñu ngi liggéey partenaires technique et financiers yi prestataires de santé médecins yi waaye dafa am liggéey boo xam ne nag nit ñi seen bopp ñoo ko war a jëlal seen bopp muy liggéey boo xam ne ci biir kër yi la jëm lii nag di stratégie bu bees tàq boo xam ne service d'hygiène def koo taxawal ngir xibaar yi nga xam ne ñu ngi ko daan joxe mu jëm ci mesure barrière yi nan la ñuy def ba moytu feebar bi moo xam raxas loxo la moo xam masque la moo xam sax di désinfecté ci sa biir kër ndab yi nga xam ne wala jumtukaay yi nga xam ne nit ñi dañ ko joxlante loolu dana wax ne message yooyu baax na xëy na nit ñi dégg nañ ko waaye nag gis nañ ne jar nañu dem ba ci biir kër yi ñu waxtaan ak nit ñi wan leen nan la ñuy raxasoo ak loxo ndax bu la nee na nga raxasoo loxo ak ndoxo saabu rek te wanu loolu ko mën naa am na nga koy defee du mate mat matawaay boo xam ne mën na laa aar wan nañ leen fii léegi nan lañu koy defee loolu nag danañ ànd ak bàjjenu gox yi ànd ak relais yi ak association de femmes yi nga xam ne ñoo fi ne acteurs yi yëpp dugg ci biir kër yi wan ko nit ñi waxtaan ak ñoom wan leen ne aussi fe xeexu feebar bi ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp kenn ku ne fi nga toll te danoo gis ne aussi bu fekkante ne jumtukaay yooyu ñuy ci kër yi aussi dañ ko war di désinfecté ak eau de javel eau de nekk loo xam ne wax dëgg yàlla désinfectant bu bu bu baax la ci virus bi boo xam ne mën na ko te tey kër gu ne am na fi waaye nag na fekk nga xam nan nga ko war a mën a doser ba li nga ci bëgg nga mën koo am ñu wax ne boo jëlee benn nat benn natt original da nga jël ñeenti natt ndox boole ko ci jaxase ko nga xam ne moom ngay désinfecté euh, surface yooyu ak objet ak jumtukaay yi yi ne ci kër yi te loolu dafa mën a faaraagal virus bi loolu bu ko ñëpp defee xam ni ñu koy defee di ko def ci kër yi dafay tax virus bi du mën a tasaaroo ndax gis ngeen ne gis bu ne ñu ngi wax ay ay transmission communautaire transmission yoo xam ni kenn xamul kan moo wàll ki jël feebar bi mu mel ne kenn ku na nga jàpp ne sa biir kër am na virus te lii lay taxawaay boo xam ne ñëpp dañ ko war taxawee bu ñu ko defee danañ dimbali fajkat yi danañ dimbali autorité municipale yi nga xam ne ñoom tam nelawun guddi dala dalatun danañ dimbali autorité administrative yi danañ dimbali aussi waa service d'hygiène ndax bu boobaa maladie dana wàññi ko te buñ ko continuer mën nañoo dem ba maladie bi jeex fi tàkk ndax li ko fiy jëlee am na loo xam ne ci autorité lay jógee ci ñuy faj lay jóge waaye am na ci nag loo xam ne ci askan yu seen taxawaay ci lay mën a jóge ca lii nag daf ci bokk. engagement waaw man de jàpp naa ñoom nag mën nañ ci tontu jàpp naa ne engagement bi ñu engagé wu ci xeex bi la ndax ku ne gis na ma man moom may jiite xeex bi ñu duggal ci car rapide pour respecter loo nit yi xeex bi di respecter loo jaaykat yi bu 6 heures jotee ñu jël suñuy oto suñu L200. dugg fu ñu war a fii Wakam à 18 heures on arrête le le le au niveau des marchés dimanche aussi ñu veille à ce que mu am ñu ngi ci désinfection bi ak service d'hygiène et cetera en tout cas nous nous sommes engagés dans la lutte euh, contre la propagation de ce virus peut-être que jàpp naa ne loolu lu tax ñoom ñu choisir le plus d'engagement le choix était naturel.